tay dañu dajé fi ci Richard euh, di amal journée économique de la jeunesse du Walo, thème bi nek promouvoir l'auto-emploi en s'appuyant sur les potentialités économiques du Walo. ndax dañu nek ci département bi nga c'est un département qui est très bien servi par la nature lepp li nga xamni ay activités la yu jëm ci activité agricole wala ci walu élevage wala ci walu pêche tout récemment nous avons découvert découvrir gaz et le gaz pétrole qui ci wetu Waalo ba ce département n'est un département producteur d'énergie avec Synergie 2 de Bokol. Nous nag ñun que nga département bi nan la ñuy def saisir ces opportunités ce que nous avons ñu amal journée bi fii ci Richard Toll suñu sago avons fait, ba jeune bi jeunes ont ci statut chercheur d'emploi à un statut de créateur d'emploi Ce qui est ci état Sénégal c'est qu'on xaar collectivité territoriale qui ñu les jeunes Le chômage c'est quelque chose qui xamante ci dëkk Sénégal mais Dagana il fallait nous apporter une réponse pour le chômage c'est dans cette perspective même que en collaboration avec la GIZ le conseil départemental de la jeunesse de Dagana organiser rencontre nous aussi nous ñëw accompagner pour mën a xool yan saafara la ñuy jéem a andi ci problème chômage bi d'autant plus que Dagana nekk benn terroir boo xamante ne am na taw am na ndox am souf, souf bu fertile. donc toutes les conditions sont réunies pour que jeunes yi mën a activer wu ci agriculture wala ci élevage donc problème de chômage dafa war a nekk loo xamante ne dañ koy xeex mu jeex benn yoon ci ci département bi d'autant plus que léegi liggéey yooyu mooy liggéey yi nga xamante ne doo dem di wuti liggéey di taxaw ak ay diplôme waaye yow ci sa jëmmu bopp mën nga créer sa bopp liggéey et puis créer yeneen ñeneen jeunes yi liggéey donc loolu moo tax waraloon suñu teewaay fii jàpp nañ ne buñ jógee ci réunion bi jeunes yi dinañ am l'information juste et vraie parce que ay techniciens ñu ngi fi ay spécialistes pour jox leen information yi mécanisme de financement yi nouveaux métiers yi aussi yi nga xamante ne day dem en adéquation avec normes environnementales yi muy les emplois verts ak yooyu noonu jeunes yi bu ñu fi jógee jàpp nañ ne dinañ am tous les outils pour mën a contre le chômage pour créer des am liguey wala créer liguey pour sen sen sen gox. forum économique bii vraiment mu donne benn échange ndax de may surtout mon ex c'est des jeunes des accessoires jeunes Et xamante ni nous la parole pour sensibiliser échanger avec leurs frères jeunes. c'est important pour créer un déclic pour leur faire savoir que c'est possible de réussir parce que les potentialités sont là. Euh, énorme. Il y a d'énormes potentialités quand on parle du Wallon. Mais aussi, euh, par où passer vraiment pour valoriser cette potentialité-là. On veut aller au-delà, c'est-à-dire aller vers la formation, parce que fille, nous dénicher vraiment les besoins en renforcement de capacités techniques, Donc, si nous devons aller une étape, c'est-à-dire la formation technique. Nous ñu ci aussi jéem comment les professionnaliser comment les formaliser Nous di mën mën a financement